ñu gis la tamit euh, barki démb nga am taxawaay bu am solo ci congrès bi nga xam ne fédération des sénégalais de la diaspora ñu ko amal fële ca grand théâtre ñu bëggoon xam rek tey lan moo waraloon sa teewaay foofu ci congrès ba. waaw congrès bi nag euh, comme ni nga ko xamee euh, c'est pour la diaspora ma bokk ci diaspora bokk ci FSD et ça fait trois ans xëy na ay quelques mois wala quelques jours ma bokkoon ci comité bi ñuy wax comité éthique. voilà euh, comité éthique nag wax dëgg yàlla moo doon saytul euh, li nga xamante ne ku wax éthique wax déontologie euh, nekk benn banqaas boo xam ne dafay saytu li nga xam ne moo doxul ci biir association bi te association bi ku ko wax wax nit ñi fa nekk. Oui, association bi euh, comité régional euh, parce que bu wax FSD comité 72 comités régionaux yi motax FSD euh, kon éthique mom dafa pour 72 comités régionaux et mi mu ëmb yëpp ah, pour pour calmer pour arranger pour les ba association bi baña am difficulté wa ci kuréel bobu la dëgg la ñu gis tamit ne ñu ngi yoon ci phase euh, assemblée générale ñu buggoon xam tey yow assemblée générale bi tey ndax ndax ndax gis nga ne mu ngi déroulé normalement ak tey boo fekkoon am nga la bëggoon tey wax ci assemblée générale bi lan lay doon. Eh, waaw léegi rek wax dëgg yàlla bi eh, façon eh, sargal bu félicitations ak recevoir parce que nag réussite la parce que eh, c'était pas évident nga a 72 pays kenn ku nekk jógee fu Euh, Belgique ñëw itali ñëw euh, Nigéria ñëw euh, Mali ñëw nu mu tuddati Gambie ñëw Mauritanie ñëw ñun ñëpp ñu daan déggante ci panel yi di liggéey virtuel te mu suñu jàkkaarloo ñu jàkkaarloo yëf yi jeex jouru clôture bi nga xam ne mooy jouru assemblée générale bi nga gis ñu taxaw naan la kon affaire bi jeex na ah affaire bi warul woon jeex vraiment c'est une réussite waaw c'était une réussite wax dëgg yàlla kontaan nañ ci bu baax. dëgg la am na solo tamit euh, comme ñu ngi ko waxee rek ñu ngi def assemblée générale ñu ngi euh, renommé waat euh, poste yi ñu xoolaat ku ndax dañuy renouveler waat ñi fa nekkoon wala déet ñu buggoon xam tey yow ndax fan la ñu mën a xaar fan lañ la mën a xaar ci ci ci FSD ak tey ban fan fan fan nga sentir ne tey war nga fa mën a taxaw pour appuyer FSD. waa man euh, wax dëgg yàlla wax naa leen ko ñoom seen biir nee naa leen éthique daf ma daf ma jatañ daf ma tënk euh, parce que bëgg naa daal euh, génn foofu dem ci exécutif wane as lëf bi nga xamante ne suñ borom dénk na mu ko ma mën ko ci mbootaayu jigéen yi waaw parce que 92 euh, ak léegi wax dëgg yàlla amul benn at boo xamante ne mun naa wax ne euh, toog naa sama kër génn ci jigéen ñi waa léegi nag ma bëgg a dugg ci exécutif moo tax ma ñëw postuler di laaj poste vice présidente waa te parce que te nag dafa war a mën a nekk parce que parité oblige waaw jigéen ñi dañu war a ñëw. jël seen wàll ci ci mbir mi wane li ñu mën euh, wane seen jaar-jaar xëy na du ñàkk ku ci for dara euh, mu jëriñ ko ñu ñu mën a wéyal loolu sama beneen moroom nekk ci sama wet am leneen lu mu indi lu bokkul ak li may indi man ñu mën a boole loolu pour mën a avancé waa na solo bu baax ak baax ñu xamee tamit ne nekk nga jigéen boo xamante nii référence nga ku diaspora bi yëpp nawloo nga tey su tey soo doon conseil sa mbokku jigéen ñi nga xam ne tey ñoo ngi lay seetaan à travers bitim réew TV bëgg la lool fonk la sa taxawaay ak sa engagement ak nit ki nga doon ak dayo bi nga am ak ni nga wàccee sa bopp ak taalibe bi nga doon tey booy boo leen di tey jox sa dernier mot ak boo leen di ñaax tey lan nga leen di wax tey. ñu booloo parce que suñu congrès bi eh, loolu lañ ko tuddee woon ay eh, diaspora unie et engagée parce que dañu nekk ci àll bi dañu génn te gis na li ñu génnee kenn ku nekk li la génnee ba yóbbu la ci àll bi ci sa kaw lan la la fekk ne la pëkk-pëkk nga jóg ànd ak moom génn ci ëtt bi taxaw fudd biin biinal mu ne la fi nga taxaw baaxul nga ne pëccati ci ëtt bi génn jëm ca pénc ma pénc ma mooy fa nga xam ne fa la ñuy wuti ji visa à l'ambassade alors bu ñu demee foofu ba am visa ba génn euh, kon euh, ci norme yu yu aw yoon la ñu jaar ba génn réew mi alors fi nga dem muy sa pays yi nga di fa wut ba dem fa ba am fa at yi nga fa am ba am expertise bi nga am parce que ku tukki soo amul koppar yi tamit am nga expérience alors expérience boobu nag moo tax FSD taxaw pour ñu boole suñu doole pour ñu ànd pour ñu mën a euh, diri li ñu am dugale ko fii ci suñu réew parce que dañu wuti woon rek pour dellu si waaye forme dellu si yi nag bari na mais ñun dañu ñaan yàlla euh, ànd indi li ñu ma li ñu am pour mën ko instaurer fii ci dëkk bi mën a tette suñu ay rakk mën a tette suñu ay doom di ñaan yàlla mu jàppale ñu si waaw <laughs> jërë ngeen jëf waa bitim réew TV loolu lañ leen indiloon tey euh, soxna si la seet si woon mu nekk ku baax nekk koo xamante ne wax dëgg yàlla dégg ngeen li ñu fi wax mu wax lu am solo trop xanaa di leen gërëm di leen sant di leen jox li daje rek incha allah beneen yoon ak beneen invité di leen jaajëfee bu baax a baax.